ok alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam su siine jël ay aayaat ci ab téeréem yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ñu ci bégal ca la ca yàlla dige te mooy ñooñee fa daje yàlla dana wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jataay bi gannaaw ba it am na ay mbokk yoo xam ni yàlla dogal na seeni jëmm teewul waaye dañ koy topp ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ñooñu nga xam ni ñoo dox suñu digganteeg ñoom te doon sit yi aju ci jàkka ji waaye rawatina suñu télévision bi di Islam TV ak suñu gan gi di Fafa TV bi nekk Kaolack ci suñu doomu ndey ba imam Alioune Badara Ndaw ñoom it dañ fee ñëwoon tey doon barkeelu jël tafsir bi yal na yàlla barkeel leen ak ñëpp ña koy taxaw kon tey ji moom mooy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci la nga xam ne mooy Shaaban shahru Ramadan ñu koy séentu àjjuma bii di ñëw yal na yàlla yeggale ñu ca ci jàmm su ko defee doomu aadama yi war a góorgóorlu waajal seen bopp ci ñaari daje yu am solo daje bu njëkk bi seen digganteeg seen boroom ñu laabal xol yi jéggalu bàkkaar yi dogg ci taxawi ramadan na ko yàlla gërëmi waaye ñaareel ba it ña yàlla may ñu tane seen moroom luñ mën ñu jàppalee leen ca da xam ngeen ne suñu boroom ñee nga xam ne dañu mënuñu wóor borom bi mu nekkoon jàppaleel su mbokkum jullit mooy génneel fidiya jox ko loolu it mbokk jaamu yàlla gu rëy mi ngi ni tiim ñu te may fexe ba la la yàlla wërsëgal nga jox ci say mbokk jullit ngir ñu mën caa dogu ci weer wi bunt yi yaatu na lool waaye nañu xam ni fii ngeen nekkit di masjid Saad ibn Abi Waqas ay nit ñu bari ñoo xamee ni nii ñu bari ci gox yi Sénégal lañu nekk dañu am yaakaar ci jàkka ji su ko defee kon lépp loo xam ne doomu aadama bi mën na ko ba def ko ca loolee boppam lay defal yal na yàlla boo la ñu nangul kon incha allah dañuy bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu aaye bu njëkk ci suuratu talaaq
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أي ينتب يالبي إذا طلقتم النساء يقدلتني سديدين لفسي سحني فطلقوهن لعدتهن نجن لنفسي ca ba ñu nekkee ca seen idda ba wa ahsul idda waaye peeg leen idda boobe wattaqullaha rabbakum na ngeen bokk ragal yàlla mi seen boroom laa tuxrijuhunna min buyutihun min buyutihin soxna yi fexe leen ba bu ngeen leen génne ci seen kër ya wala yaxrujna ñoom it bu ñu génn illa an yatiina bi fahishatin mubayyina xanaa lu dul dañoo dikki ci ñaawteef boo xam ni bu ñu leeral la wa tilka xududullah lii de moom mooy rëddi yàlla wa man yataadda xududallah koo xam ne da ngaa jéggi rëddi yàlla day faqad zalama nafsa ku mel noonu tooñ na boppam laa tadri laalla allaha yuxdisu baada zalika amra ndax xamoo ndax yàlla du sos gannaaw juuyoo booba ngeen am la nga xam ne mooy mbir mbokk kon lii mooy suratu talaaq dana la jaaxal lu mel ne fase nan la ko alquran di wutalew saar waaye mbokk julit xam leen ne alquran dafa jàngale julit ni mu war a fase loo xam ne su ci julit ñépp tënk woon góor ña ak jigéen ña mbokk téeméeri sëy yu tasoon xam leen ne juróom ñaar fukk yi dana sube safaanoo lool ak loo xam ne benn soxna bu ñu wax Fatima Bopp bindoon na ko fii ci boori ay 2015 benn téereem boobu mu bindoon ci divorce di wax ne booy xoolee presque lu mel ne Dakar juróomi sëy yu ñu fi takk balaa trois ans ñaar yi dana tas di wax ne sëyu xay xale yi li ci ëpp balaa nga am ci yaakaar dañoo passé cinq ans mbokk loolu lu doy waar la donte ne mucc ci sax ñi nga xam ne dañ naan dañuy góorgóorlu ci sunna ba loolu moo tax ba bu ngeen fàttali koo jàkke ji daje nañ fi benn séminaire ci wàllu mariage imam Aboubacar Sall imam Cheikh Ousmane Galadio docteur Mouhamad Lo niñ ko defe fii defe nañ ko Abu Ubayda defe nañ ko Ibnu Mubarak ngir fàttali jullit ñi ci ne mbokk suy dey suñu borom da ko tuddee kóllëre kóllëre gu tar nee na jullit dëgg-dëgg mooy allazina la yanquduuna al misaq jullit du du du firi kóllëre amma sëy mu ne wa axasna minkum misaaqan galiza dañoo jël ci yéen kóllëre gu dëgër looloo tax ba kenn du wax bu leen fase déedéet fase yàlla moo ko may comme solution ndax tey jii boo demoon hôpital boo mag boo gis am na lu ñu tuddee chirurgie ñooñu nga xam ne léeg-léeg dañuy ñëw xool ab tànk daañ fexe pexe bu nekk pour sauver ko suñ demee nag ba xam ne pexe amatul ñu laa ay li yéwén nañ ko dagg bala muy yàq desitu yaram bi loolu it ab sëy dana toll foo xam ne ñu dindi ko moo gën mu continuer waaye lii muskila muskila mooy li ëpp ci nit ñi dañuy dagg tànk bi te tànk bi jarul woon ñu koy dagg mi nga noonu pour joxati rek misaal ci loo xam ne nii dama ko dund ci weer yi matagul deux mois koo xam ne programme woon bañ ne dañuy dagg tànk bi waaye alhamdulilah biñ ci waxtaaneek ay professeur ñoo xam ne seen xam-xam moo gën a kawe ba ñoom ñu jël malade bi góor ga ma nga ne akub tànkam gis ngeen loolu it mooy am ci sëy su ko defee ku nekk ci ñun war cee bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala lii dañ koy tuddee suratu nisa as-suxra saaru nisa bu ñu gàttal waaye demal suuratu nisa kenn xamul ñaata page nga fay fekk waxul lu dul ci wàllu tas ak sëy demal suuratul baqara kenn xamul ñaata page nga fay fekk ba ni yàlla détaillé sëy ak fase détaillé wu ko julli ak koor loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala ne yow yonent bi muy wane ne acte bi kenn génnu ci du sëriñ ba du imam ba du kenn ñépp a ci bokk su ngeen bëggee fase jigéen fase leen leen ci seen idda lan mooy idda mbokk jigéen boo ko bëggee fase da ngay bàyyi ba mu gis règle ba réglam jeex nga xam ne boo ko fase loolee day daal di commencé iddaam amma boo ko fase woon ci biir règle règle boobee kenn du ko considéré benn muy gis règle ñu fase ko gannaaw bu mu laabee wala ñu fase ko mooy wóor nañu ne ëmb na wala ñu fase ko fekk bokkul ci ñuy gis règle ñett yi yépp mënees na caa fase jigéen mu tàmbali ab iddaam gannaaw ba suñu borom mu ne fexe leen nag ba peek idda bi te muy jigéen gis na règle boo xam ne àndu leen ci ci lal gis na règle ba pare àndoog moom ci lal soo àndeeg moom ci lal loolu du idda sunna àndu leen ci lal nga fase ko mu dem ba gis beneen règle mi ngi noonu gis beneen règle muy ñaar gis beneen règle muy ñett lii mooy li suñu borom ne nañu fexe ba peeg idda boobee mbokk wàllu sëy ak fase dafa jege bakkan jege mer jege intérêt àdduna moo tax suñu borom yàlla daa di ci insisté ne wattaqullah saar bi fukki aaya la ak ñaar suñu borom di ci woote juróomi yoon ak taqwa borom bi nee na wattaqullah rabbakum borom bi nee na wa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja borom bi nee na wa wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra borom bi nee na wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati ca feeba mu ne wattaqullah ya ulul albab juróomi yoon mu ci woote ragal yàlla muy wane na mbokk yow julit sëy bi dañ cee war a seet yàlla borom boobu subhanahu wa taala ne ragaleen yàlla mi leen bokk moom muy seen borom fexe leen nag ba bu ngeen leen fase bu leen leen génne kër ya ñu nekkoon waaye soxna yit ñoom bu ñu génn loolee mbokk it safaanoo lool ak ñun aaday Sénégal aaday Sénégal da ngay gis soo xam ne naan soxnaam jëlal say bagage nga dem bu ma ñëwee bu ma la fi fekk yeneen soxna yañ ko waxulit képp koo xam ne fase nañ la benn guddi xalaatoo fanaan sa sa kër borom kër tant yaag bàjje ni ñëw ñu buub yépp yóbbu mbokk loolu du sunna loolu du diine borom bi dane soxna si bu ñu ko fase nañ ko bàyyi ñetti weer mu toog foofu yow soxna si bul génn lu waral loolu ngiree suñu borom yàlla subhanahu wa taala mën naa wëlbatiwaat la leen naqari woon ba ngeen teqali ko yàlla changé loolu diiru ñetti weer borom kër gi di gis soxnaam parce que ne ko de waaw mi ngi ci kër gi di gis soxnaam yàlla bu ne am na ay doom mu gis doom yi di xalaat kii bis bu soxna demee doom yi ni ñuy def soxna siit di gis jëkkëram di xool njabootam loolee mbokk balaa ñetti weer a jot fokk ak jubóo mën naa am moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne bu ñu leen génni xanaa lu dul dañoo jéggi dayoo ci indi la nga xam ne mooy ay ñaawteef soxna si bu dee nag dafa ñëw di attaqué histoire gu dégg ba cëg na doon say waajur la wala ñu gis ko muy dox tànke caaxaan loolu moom beneen mbir la su indee ñaawteef bu leer su boobaa loolu moom mënees na koo génne borom bi nag ne lii yàlla tëral képp koo xam ne jéggi na ko tooñ na boppam ndax xamoo lu yàllay sos gannaaw bi ngeen teqali ko te it mbokk ak ñoo bari gis ay ñoo xam ne dañoo fase seen soxna fase ga amul ñetti fan ku jigéen kañaanoon baat fu ne mu dugg fa ngir dellu si ku góor ko ko fase woon fu ne mu dugg fa ngir delloo ko bu doon def ngeen li yàlla santaane ba ngeen tasee ngeen toog seen kër ndax loolu dana am déedéet loolu du am moo tax suñu borom mu ni xamoo ndax yàlla subhanahu wa taala du sos la nga xam ne mooy mbir gannaaw loolu su ko defee mbokk jigéen boo ko fase njëlbeenu fase tànka idam jeexul yaa ko war a dëkkal yaa ko war a yor ca fa nga xamee ni nii fa la dun suy moo tax suñu borom waxul laa tuxrijuhunna min buyutikum waaye dana min buyutihinna muy wane ne soxna si néeg boobu mu nekkoon moo ci gën a yey ku neen ku dul moom lu dul idda bi jeex loolu fenn rek la borom xam-xam yu am ixtilaaf bu dee da nga koo fase ñetti fase nag bu dee da nga koo fase ñetti fase lu mel ni ay mazhab abu hanifa ñoom dañ naan atte bi du changé yaa ko war a dundal yaa ko war a ah dëkkal allahuma am na ñoo xam ne dañ ne dundam waratu la dëkkalam waratu la ndax fase ñetti fase yi jeex na loolu moo xaw a gën a ëpp ndëgër lay ku mel ni mazhab malik moom daa digg doomu su dee ñetti fase yi am na nga xam ne mënatu leen a sëy néeg bi mu nekkoon man bàyyi ko fa ab dundam nag waratu la waaye nag bu ko génne tant que idda bi jeexul yooyu ay masala la ci wàllu fiq yoo xam ne du xat ñu koy détaillé ci tafsir ala kulli xaal ñu doy loo loolu bismillah cheikh ousmane
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ni fa ida balagna ajalahunna suñu demee ba jot seen dig ay ba kay waaja jot fa amsikuhunna bi ma'ruf jàppaat leen leen ci njëkk aw faariquhunna bi ma'ruf wala ngeen tekk teqalikoo ak ñoom ci njëkk wa ashhidu zawi adlin minkum seedaloo leen ñaar ñu maandu ci yéen ca ba ngeen di fase ak ba ngeen di delloo wa aqimu shahadata lillah yéen ñi ñi woo taxawal leen seede bi ca yàlla tax zalikum yu'azu bihi man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir lii di la ñuy xuppee képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja képp ku ragal yàlla yàlla may ko génnuwaay wa yarzuquhu min haythu la yahtasib te dana ko wërsëgale fu mu ko foogewul woon wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu képp koo xam ne daa wakkirlu ci yàlla yàlla dana ko doy inna allaha baalihu amri ndax yàlla day kuy jot la mbiram lépp lu mën a doon qad jaala allahu li kulli shay'in qadra doonte ne yàlla lépp lu mën a doon da ko wutal ab dogal bu mu ko dogal mi ngi noonu mbokk soxna saa ngi nii suñu borom nee na bu ngeen nekkee ci kër gi dëkk benn place pendant ñetti règle nga xam ne de manière générale ma trois mois lay doon mën na ko yiis waaye mën na ko ëpp suñu demee ba mu jot la nga xam ne muy dig ba ñu war a jeexe loolee du ne da ngay bàyyi ba délai bi jeex ndax délai bi moom bu jeexee c'est fini seen diggante jeex na yàgg góor ñépp ci yem boo ko bëggee da ngay indiwaat cantakaat ko waaye lan la yàlla namm ci lii fa ida balagna ajaluhunna borom xam-xam yi ñu ne mooy bi borom bi di wax naan fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alsheytani rajim ça ne pas dire que da ngay jàngal alquran ba pare doog a wax aouzu billahi min alsheytani rajim déedéet mooy balaa ngaa jàngal alquran waxal aouzu billahi min alsheytani rajim ko ñit suñu borom bi mu wax ida balagna ajaluhunna ay bala ñoo jot dig bi bu boobaa delloowaat leen aajowul can aajowul dara sa soxna la delloowaat naa ko delloo googee la ca gën a dëppoo ci borom xam-xam yi mooy nga wax ne maa ko fase woon jëlaat naa ko donte ne la ëpp ci ñoom nee nañ xatta bu doon da ngeen ànd ci lal ca mooy delloo ci jëf islam day nangu delloo boobee delloo ngeen leen borom bi mën a jàppaleen leen ci njëkk wala ngeen bàyyi leen ci njëkk ca mbokk suñu borom fu waxe sëy day wax maaruf mooy loo xam ne aada la ci dëkk ba loo xam ne ni sharia nangu na ko lii la ñuy jàppe jigéen ci sëy jublu ca la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla loolu moo tax ba ni ñu yore ci soxna ci Dakar da bokk ak nañ ko yore Fuuta da bokk ak nañ ko yore New York gox bu nekk ak lan mooy maaruf ci lu ñu war a so yore soxna suñ demee it ba jàpp ne sëy bu mu mënatul a nekk borom bi mu ne kon bàyyi ko mu dem ci maaruf ci yeneen aaya borom bi nee na matti uuhunna loo man ci alal jël ko jox ko ba ay param kontaan ba moom mu kontaan xam ne sëy bi yàllaa ko jeexal waaye ak noonu amu fi waaye mbokk teqilikoo bu ñaaw day jur ba ëllëgi ki si biir mën nañoo dem ba bëgg a àndaat bu ñu xalaatee lu bon lañ teqilikoo woon rek loolee indi problème te mbokk ab sëy tas na ñaar fukki at après ngeen àndaat gis naa ay sëy 30 ans après lañu àndaat 30 ans après lañu àndaat adduna dafa gudd tànk kon su ngeen dee ànd ànd leen ci njëkk su ngeen dee teqalikoo teqalikoo ci njëkk muy ko góor ki ak ko jigéen ki borom bi nag ne booy fase sa soxna ool ñaari ñett nga ne leen diw dey bàyyi naa ko ñoom ñu seede loolu bis boo demee ba koy jëlaat utal ñaari ñett seedaloo leen ah diw de maa ko bàyyi woon jëlaat naa ko lii mbokk da ngay gis ne mooy fase sunna doonte ne ne kii fase ci bidaa teewul l'islam da koy kontel loolu ki fase soxnaam fekk mi nga ànd ak régal fase bidaa la kii soxnaam gis régal ba pare mu ànd ak moom ci lal ba pare fase ko fase bidaa la kii fase ca seedaloowul ko kenn fase bidaa la waaye nag teewul sharia da koy konte fase bu dee ñaar ñaar bu dee ñett xaram na la babaa ngay muy ànd ak ànd ak beneen góor borom bi subhanahu wa taala it ne yéen ñi ñuy seedaloo seede leen ci yàlla tax moo ko seede amul benn intérêt xanaa coono kese coono kese sama benn waaye dana ma damaa fekk benn accident nee na ma nekk témoin ci accident bi waaye mu ne bu ma rombatee accident damay teen dem fële ndax coono tribunal suba tribunal ngoon déedéet mbokk julit seede da nga koy seede ci yàlla tax aqimu shahadata lillah mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni lii ñi ngi koy xuppe ci gëm yàlla ci gëm àllaaxira te mbokk julit lii mooy gànnaay yu julit entreprise ba la sëy ba la tukki ba la jëflante bu mu mën a doon da nga ciy xalaat sa borom xalaat ci ëllëg àllaaxira boo demee àllaaxira mu safaanu ngi ci àdduna bu dee àdduna rek ngay xool mbokk say lor muy ëpp say njëriñ waaye kii bàyyi xel boroomam di bàyyi xel allaaxira kooku dënnam dana yaatu lu bari dana ko mën a muñ lu bari dana ko mën a jéggale ngir yaakaar ci payu yàlla ak allaaxira borom bi it ne ki nga xam ne daa ragal yàlla wa man yattaqi llaha yaj'alhu maxraja yow ku góor ki yor soxna soxna bi sonal la pexe bu ne def nga ko ngir jubbante ko yor ko ci yàlla tax mu daal di bañ su boobaa borom bi subhanahu wa taala ragal yàlla googu ak effort yooyu ngay def ñaar mën na caa am mooy mu may la solution bala nga bëggoon ci moom am wala mu teqalikoo la ak moom teqali la ak moom utal la ku ko gën yow soxna si it sëy bi ngay sëy soo ca ragalee yàlla seetoo ci sa bakkan bépp jëflante nga xool ci lan mooy ngërëmal yàlla lan moo lay xaar allaaxira boo ko defee ci sëy bi suñu borom fokk ñaar yi mu def la ko mooy ihdal xusna yey ni imma yàlla mën naa dem ba wëlbati tiis ak naqar yi la amoon yi nga amoon ci sëy bi yépp yàlla wëlbati ko def ko maxraja yaatal la wala boog yàlla teqali la ak borom kër boobu utal la borom kër bu ko gën moo tax borom bi ne yajaluhu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib te it julit day ragal yàlla wékku ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ndax borom bi su ni mu ne danaa ko wutal fu mu ko foogewul mu ne ku wékku ci yàlla yàlla dana ko day te toujours yow jullit da ngay xam ne sa kattan ni mu limité noonu la sa xalaat limité amma kàttanu yàlla amul limite dogalu yàlla lu ko neex def loolu moo tax ba yow toujours jàppal rek ne su ma defee li neex yàlla mujj ga toujours xéewal lay doon ci man fan lay jële beneen soxna yàllaa ko gàddu fan lay jële borom jë- beneen borom kër yàllaa ko gàddu fexeel rek yow ba jubba ak sa borom jalla wa ala borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moom lu mu bëgg a am da koy amal ah yàlla lu tax indi xecc li woo ma léegi mu ne waaye lu ne dama ko wutal dogal bokk yàlla kenn du ko yàkkamti yonent bi alayhi salaam nee na yàlla dana wuyu jaamam bi kay woo maalam yaajal fii ak yàkkamtiwul ñu ne ko ma yonent yàlla lu yàkkamti mu ne ah ñaan naa ba sonn bàyyi naa déedéet yow ko góor ki saxal di ñaan yàlla jàmm ci sa ménage ci sa kër yow ko jigéen ki saxal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla may dégg ñaan ci lu nu utul la ko ab dogal yàlla na dogal ci ñun yiw àdduna ak alaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
بارك الله فيكم سني برموني ولا يعصن من المحيد ñi nga xam ne nag ñoom dañoo naagu ne dootuñu gis ci réegal min nisaikum ci seen soxna yi inir tabatum su ngeen dee sikk sàkk ci seen idda ni muy demee fa iddatuhunna salaasatu ashhur ñoom de seen idda mooy ñetti weer walla i lam yaxidna ak ña nga xam ne mosuñoo gis reygalit ñoom ñetti weer lañ leen di jàppal wa ulaatul ahmaal ña nga xam ne bañ leen di fase dañoo ëmboon ajaluhunna an yada'na xamluhunna ñoom seen dig ba idda bay jeexe mooy bis ba ñu wasinee wa man yattaqi llah yaj'al lahu min amrihi yusra képp ko ragal yàlla yàlla defal ko ci mbiram ak yombal zalika amrullahi anzalahu ilaykum loolu mooy mbiri yàlla bi mu wàcc ci yéen wa man yattaqi llah yukaffir anhu sayyi'ati ku ragal yàlla yàlla far ay ñaawteefam wa yu'zim lahu ajra ca màggal la nga xam ne mooy payam mbokk suñu boroom wax na ci kaa ñi nga xam ne dañoo war a gis règle nan la seen fase di demee mooy bàyyil ba mu gis règle ànd ak moom ci lal bu la neexee nga doog koo fase idda ba kañ lay jeex mooy biñ ko fase gis na ñetti règle waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañoo passé gis règle nag nekk ménopause suñu borom mu ne bis bañ ko fase nañ compter trois mois bu trois mois ya jeexee ci la idda bay doog a jeex waaw xale bu jigéen bi musul gis bi musul gis règle nag donte ne monsieur le procureur ah sama téere borom lay wax de waaw téere borom lay wax waaw ndax ñun xam nañ ne bokk na loo xam ne nii yàlla nattoo nañu ko mooy suñu assemblée bii nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans ñoo fa nekk ñoo voté ay loi ni xale bu jigéen bu amul 18 ans kenn amul droit maye ko mu safaanoo ak suñu diini safaanoo ak suñu aada man mii day sama mbooli mi sœur sëy nañu avant 18 ans alhamdulilah ba saa bàyyi dee waa ñuy def luwaay am naa yéen it xam ngeen ci loolu mbokk loolu xel nanguwu ko xel nanguwu ko safaanoo na ak suñu aada aka bari fii ay xale yu jigéen yuy nekk di hôtel yi di wër seen bopp ay 14 ans ay 15 ans la ñu am dugal yéen ndaw ñi ci internet bi ana ñaati ngeen gis ay xale jigéen yoo xam ne 9 ans ci la ñu am doom su ko defee li nga xam ne nii mooy tëral ne kenn du sëy avant dix-huit ans loolee mbokk njuumte la njuumte la kenn waru koo nangu alxuraan dafa safaanoo ak loolu soxna si mën nañ koo maye fekk commencé gul commencé gul gis règle su ko defee ku mel noonu bu ñu ko fasee ñetti weer lay toog su ñetti weer yi jeexee ca la iddaam doo ko jeex digganteem ak borom këram soxna si nga xam ne bi ñu koy fase daa ëmb na doon dañ koo fase tey tey tey mu wasin tey tey tey tey idd ba jeex na tey tey tey waaye buñ ko fasee ëmb ba duré neuf mois it idda bi neuf mois lay duré kenn amul droit di ko génne amul droit di dugg ci beneen sëy loolee mbokk règle bu mel noonu mooy am ci bu jëkkër ji faatu woon tant que mi ngi ëmb moroomam yey toog quatre mois dix jours moom ak tënjëm mi ngi aju ci ëmbam tënj gi mën naa durer neuf mois comme tënj gi mën naa durer un jour ndax fu fu mu amee doom après dégg jëkkëram rek loolu jeex na kon borom bi loolu la wax léegi nag borom bi subhanahu wa taala feddaliwaat ne ku ragal yàlla yàlla dana yombal ay mbiram te ngal la waaye boo bëggee yàlla yombal sa àdduna ragalal yàlla rek dañoo xool rek masalan suñu xale yu jigéen yi nga xam ne dañuy muur seeni cër muur seeni cër ndax ñooñu soxla lañ greffage trois trois cent mille trois cent mille déedéet ndax ku ci amul takkaayu or dañ la déranger déedéet ndax soxla nañ ñu bëri déedéet loolee mbokk da ngay gis ragal yàlla day tax say mbir yomb sunu ndaw ñii di góorgóorlu ci sunna ndax coli rappeurs yi nga xam ne dañ koy def ak yu yu nekk ñu ciy dugg ndax loolu dana leen itteel itteelu leen lu tax mooy ragal yàlla day yombal say mbir gannaaw ba itamit ki ragal yàlla xalaatul dem ca njabar yàgg ki ragal yàlla demul du dem ñu koy nax ci xaalis ki ragal yàlla caaxaan yu bari du ci dugg ba nga xamee ne xale bu góor bi ragal yàlla ànd ak moromam yu ragal yàlla pour mu raw leen day yombul lool sax wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra borom bi nag samay mbir mi ngi nii wàcce naa ko ci yéen ku ragal yàlla yàlla far say bakkaar ci it dana màggal la nga xam ne mooy say cër ma la mooy pay gam la nar a fay ca moom ca it lii li muy wane mbokk julit mooy ragal yàlla firiwul ni sans faute yàlla bindul jaam boo xam ne nii du juum waaye ragal yàlla mooy foo juumi nga nangu ne da ngaa juum tuub dellu ci yàlla yàlla faral la say bakkaar yàlla na yàlla wërsëgal ñu ragal yàlla te faral ñu suñuy bakkaar
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا barakallahu fiikum suñu borom mu ne askinuhunna min haysu sakantum dëkkal leen ak soxna yi fa ngeen dëkk min wujudikum ci seen am am wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna bu leen leen lor ngir xatal leen ba ñuy dem wa in kunna ulaati xaml bu dee dañoo nekk ñoo xam ne borom yi ëmb lañu fa anfiqu alayhin hatta yada'na hamlahun dépense leen ci ñoom ba baa ñuy wasin seen ëmb ya fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun su dee dañ leen di nàmpalal jox leen leen la nga xam ne mooy seeni pay wa'tamiru baynakum bi ma'ruf ci ngeen di diisoo seen diggante ci njekk wa in ta'asartum su ngeen demee ba jafe-jafe dugg ci seen diggante yéen ñaar fa saturdi'u lahu ukhra kon dana ko nampalal keneen ku dul soxna sa li yunfiq zu saati min saati ngiree muy dépensé borom alal ju yaa ca yaatuwaayu alalam ja wa man qudira alayhi rizqu koo xam ne dañoo xatal ci moom wërsëgam fal yunfiq mimma ataahu llah teewul na dépensé ca la ko yàlla jox la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla du teg benn bakkan lu dul la nga xam ne da ko ko dikke jox ko ko sa yajalu llahu baada usrin yusra yàlla dana def gannaaw jafe-jafe lii di ak yombal mi ngi noonu mbokk suñu boroom ci xikmaam daa bëgg ki fase soxnaam jamono bi ñuy iddew nañu dëkk moo tax borom bi ne dëkkal leen fi ngeen dëkk wax na sànq bu leen leen génne waaye yow xattaa ko góor ki rafetlu wuñu nga bàyyi ko ca kër ga dem sa yoon yow ca xam ngeen bu doon suñu loi yi ñoom dañ naan la su dee da ngeen nekk en instance de divorce yaa koy dëkkal fu la neex nag nga dëkkal ko fa mi ngi noonu bu la neexoon dem luyel ko kër Masaar wala feneen fekk yow yaa ngi Dakar almuhim suñu borom mu ne nañu fexe dëkk ak soxna yi nañu fexe dëkk ak soxna yi ci jamono bi ñu leen fase te it buñ leen xatal ba soxna yi di bëgg a demal seen bopp te xam ngeen ne mbokk jigéen it yàlla defu ko prisonnier yàlla defu ko jaam islaam la nga xamee ne nii moo nekk ca yeneen diine ya te mooy sëy rawatina diine catholique sëy tas amu ci islaam moom gisuwul noonu mooy imma yow ko góor ki bis boo demee ba jàpp ne mënootoo nekk sa borom kër islam nee na may na la nga fase ko yow soxna si it su dee sa borom kër xatal na la xatal na la muñ nga ba mënatoo muñ ñaan nga ko njekk bañ na sunu borom may na la nga delloo ko la nga ko joxoon lam la joxoon te génn ci sëy bi am na nag góor ñoo xam ne dañuy bëgg a pousser seen soxna ba soxna si delloo leen seen can suñu borom nag mu ne bu leen def loolu mukk te bu dee dañoo nekkoon ñuy ëmb continuer leen di dépenser ci ñoom ba baa ñuy wasin su dee ñoo leen di nàmpalal seen doom ah léegi nag dootu sa soxna maadaama wasin na it dama jeex na dootu sa soxna kon da ngeen di d'accord loo koy fay par mois mu lay nàmpalal su dee déggoowu leen ci lim koy fay nga jël sa doom jox keneen mu nàmpalal la rawatina loolu nekkoon na aari arab yi allahuma suñu borom yàlla mu ne lu ci mën a am it dee leen diisoo ci njekk mbokk sëy bi tas na waaye mbokk gi wurta yokku sëy bi tas na dans la plupart des cas ay doom am na ci kon teewul dee leen diisoo di ànd ci njekk loolee ku ne ci ñun war cee bàyyi xel comme niñ ko waxe woon sànq doonte ne ànd ci njekk googu it nañ moytu ak bari it ñoo xam ne dañuy nekk seen soxna am ak ñoom problème fase ko iddi bi jeex na ba pare ñu wëlbatuk di njaaloo wal iyaz billah donc loolu musiba munta paase loolu musiba munta paase loolu képp koo xamee ni nii sa soxna la fase nga ko iddi bi jeexagul nga la way jëlal iddi ba jeex na bu demen nga ko takkaat utal can nga takkaat ko waaye ngeen nekk soxna am njaboot su ngeen dee duggante nit ñi duñ ci bàyyi benn xel moom la doon seel njaboot gaa ngi fi ngay dugg ci moom di dem ci moom waaye nga dem nag ba pare wëlbatu ko bëgg a def ak njaaloo loolee mbokk musiba bu gën a rëy la ndax xam ngeen bu leen sharia jàppoon moom yéen ñaan ñëpp dañ leen di rey kon wa'tamiru baynakum moo tax borom bi ne bi ma'ruf ci njekk borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne nañu xam ne kii fase soxna ngalawaay moo ko war a yoral la nga xam ne mooy dépense am ci bu dee daf koy nàmpalal loolu nag li ñuy teg ministre bi duñ ko teg chauffeur bi ku nekk la la yàlla may ci wërsëg yàlla tegulu lu dul loolu te règle boobu du ajiwul ci wàllu fas rek mboole mbiru àdduna noonu la demee laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha ku nekk la nga xam ne moom la yàlla teg ci say mën-mën ci foofu la la yàlla xoolee ci say dépense loolu it moo tax ba doomu aadama bi dana dépensé benn 1000 francs yàlla gën koo gërëm ka dépensé 100000 ndax ka dépensé 100000 wurul woon a dépensé 100000 1 million la waroon a joxe te kiy joxe 1000 francs bi moom dafa sacrifié pour joxe ko kon yàlla tegul benn bakkan lu dul lam ko jox borom bi nag daal di ñuy dégg ci ne bépp jafe-jafe bu ngeen nekkee su ma neexee wëlbati ko indi ak yombal ca gannaawam looloo tax ba mbokk saar bi it bokk na lu ñuy gën a ñaax mooy bul découragé aka bari ay góor yoo xam ne dañuy ànd ak jigéen am déception deuxième déception ñu ne ñun pare nañ ci jigéen ñi erreur mën ta passé loolu yow soxna si yàlla booleeg benn góor déception deuxième góor déception nga ne pare nga ci góor ñi erreur mën ta passé loolu mboolem ko ma ko mas a waxal dama ne ko yow da nga àtte sa borom ne yàlla ñim bind ñépp a bon déedéet yàlla bind ay jaamam bind ci ñu baax bind ci ñu bon te yàlla moo ne gannaaw jafe-jafe danaa indi yombal looloo tax ba ngalla waay nañu góorgóorlu heure boo amee déception benn ñaar ñett li may wax ndaw ñu toujours ndax am nga sept déception mu ne déedéet ma ne ko kon bul découragé mam haajara day ba muy ut ndox pour doomam ismail daw na ba safa gisul ndox marwa gisul ndox ali ali ñaata yoon sept fois suñu borom doo koo xett li kon julit lépp loo xam ne yaa nga ci ca amoo ca sept déception amoo droit di di di di di di di dellu gannaaw ci loolu su ko defee kon mboolem ku nekk ci ay xat-xatu sëy yal na yàlla may ko ca maxraja yal na yàlla wërsëgal ko fu mu ko feegawul kon mi nga noonu Cheikh Ousmane
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne wa ka ayi min qaryatin atat an amri rabbiha moo ana ñaati ci ay dëkk ñu jéggi woon dayoo ci seen mbiru boroom wa rusulihi jéggi dayoo ci ay yonentam fa xaasabnaaha xisaaban shadida ñu ni yàlla ñu xisaab leen régle leen ci régle bu tar wa azabnaha azaban nukra mbugal leen ci mbugal moo xam ne bu bon bu ñaaw la fa zaqat wabaala amriha mu daa di mos ñaawtaayu jëfam wa kaana aqibatu amriha xusra mu wëlbatu ko nekk mujj mbiram yépp pertaange aadda allahu lahum azaban shadida yàlla ngi leen di waajalit ci àllaaxira mbugal mu mu tar fattaqu llah ya ulil albaab e waay ragal leen yàlla yéen borom xel yu mat yi alladina amanu yi nga xam ne da ngeen a gëm qad anzala allahu ilaykum zikra yàlla wàcce na ci yéen ak fàttali rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayinat mu yonent boo xam ne mi ngi jàng mi ngi jàng ci yéen aayay yàlla ya nga xam ne nii yu leer la cay leeral li yuxrija alladina amanu wa amilu salihat ngir mu génne ña nga xam ne dañoo gëm tey def lu baax mina zulumaati ila nuur ca lëndëm ya yóbbu leen ca leer ya wa man yumin billahi wa yamal saliha koo xam ne da ngaa gëm yàlla cay def lu baax yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaar yàlla dana ko dugal àjjana yoo xam ne dana daw ca suufam ay dex xaalidina fiha abada mu sax foofee ba faw qad axsana allahu lahu rizqa rizqa ku mel noonu day yàlla rafetal na wërsëgam allahu lazi xalaqa sabaa samawat yàlla mi nga xam ne moo bind juróom-ñaari asamaan wa min al ardi mislahun moo bind suufit lu tol noonu muy juróom-ñaar yatanazzalu al amru baynahun dana wàcce mbiru yàlla ba ci seen diggante li taalamu anna allaha ala kulli cheyin qadir ngiree ngeen xam ne yàlla moo am kàttan fi lu mën a doon wa anna allaha qad axaata bi kulli cheyin ilma ngeen xam ne it yàlla moo peeg ci bépp mbir ca xam-xamam ba jalla waala bokk suñu boroom wax na ak waa kër gi muy le couple nga xam ne kër googu ñooy former benn société mooy dëkk boo mën a dem ay ville ñoo fa nekk ay dëkk yu mag mu am fa ay kër ñoo dajale nekkub dëkk léegi nag yéen waa dëkk bi gannaaw bi yàlla santaane waa kër gi ñu ragal yàlla ana ñaata ci ay dëkk yoo xam ne ba yàlla téralee ay mbiram dañ koo jéggi sànni ko fële la yonente yi digle woon ñu sànni ko fële suñu borom yàlla toppee leen seen jëf xisaab leen xisaab bu tar te xisaab bu tar mooy ko yàlla jéggalul say fët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne bi muy wax ñi nga xam ne dañuy dugg àjjana ca kenn du leen xisaab yal na yàlla booluñu ca suñu ay aycha na ko ah ma jàng suñu borom ne fa amma man uutee kitaabahu bi yamini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira mooy julit ñi yàlla da leen defal xisaab yasira mu ne ko déedéet ya aycha ay déedéet aycha loolu ab gaaral la rek suñu borom ne malaaka yi sama jaam bi lii la def waaye képp ku ñu lëj mbët say dossier fokk yàlla dina la mbugal kon xisaaban shadida mooy yàlla baalu leen mbugal na leen ci àdduna te da leen di mbugal allaaxira loolu moo tax ba mbokk jullit sécurité réew la koy sàmm mooy ñu déggoo ak seen boroom waa dëkk bi bu ñu ragalee yàlla yàlla indi jàmm indi xéewal bépp dëkk bu woon gannaaw yàlla lu mu yàgg yàgg ay nattu day tàbbi ci kawam boroom boobu nag ne nii lañu mosa seen ñaawaayu jëf ca seen mbir yépp nekk pertaange borom boobu ne nag ragal leen yàlla yéen borom xel yi mbokk ragal yàlla borom xel dong ko mën a def ndax yàlla ay ndigalam pay ga àllaaxira la àdduna du kërug fay kërug nattu la ñi fi ëppale mooy ñi gën a ñi gën a jalga ci ndigalu yàlla yéeféer yi ñoo ëppale ci àdduna zuyyina lillazina kafaru alxayaatu dunia su ko defee yow mi borom xel yaay xalaat ne masalan suñu xale yu jigéen yi yow mi nga xam ne yaa gis ñi nekk seen jumbox aaw di ñi nekk seen greffage yi xeesal ba weex kii ah loolu de jigéen yàlla ko bind ci taar waaye nag hey lii day ngërëmal yàlla nekku ci ah nga dem jël sab jël baab muuro forom mu ñu lay joxoñ di la reetaan waaye yow yaay borom xel ndax yaa xam ne mujj ga yow yaa koy yaa koy mujj am déet kon mboolemi jaamu yàlla it noonu la demee fattaqullah ya ulul albab diine ñi koy dund mooy li nit ñi intelligent ku intelligent wul mënta dund di diine ndax tey rek lay xool amma julit dëgg mooy xool ëllëg bi mu dajee ak ak boromam jalla waala suñu borom mu ne wàcce naa ci yéen zikra muy alquran ji ak rasul ba koy leeral ca loolu it fa lillahi alhamdu bokk suñu jataay bi yal na ko yàlla ful ay junni junni jataay ci Sénégal waaye ak tumuranke ak tumuranke nga dem ci ay dëkk fekk mbooloo yi daje ñu jël zikrullah di ko leeralal nit ñi ngiree génn leen ci lëndëm yi yóbbu leen ci leer boo ko alxuraan ñëwul woon pour ñu ne bàyyi dafa dee ñu wàcce ko alxuraan ñëwul woon pour ne dañoo daje wàcce nañ fa ñetti téeméeri kaamil alxuraan ñëwul woon pour xale yi ndaw yi rek mokkal ko seeni dënn laa wallahi alxuraan daa ñëw ngir ñu leeral ko xam ndigal yi xam tere yi taxaw ci bañ timis ba léegi lu ñuy jàngale xanaa du tas du du fase la ñuy jàngale lu ñuy fase loolu la ñuy jàngale ba tey waa ki mokkal saar bi rek di ko tari guddeeg ba ci comprendre ko lu mu koy jëriñ kon yonent moo ñëw ngir leeral alquran ngir nit ñi mën a génn ci lëndëm yi lëndëmi tooñ yi nga xam ne day am ci wàllu sëy am ci wàllu miraas am ci wàllu atte yi am ci wàllu gouvernance lépp loo xam ne dafa am alquran moo ñëw di leen leeral fii ngeen war a jaar borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne dana génne ñi gëm ca jëf lu baax ca lëndëm yi yóbbu leen ci leer képp koo xam ne gëm nga yàlla ca jëf lu baax te mooy dëppoog alxuraan ak sunna borom bi mu ne danaa ko dugal àjjana yoo xam ne bu fa duggee du génn ba faw te yàlla rafetal na wërsëgam wërsëgu rafet àjjana la am li la yàlla wërsëgal ci àdduna commenceel sa jëmm ji xoolal ni nga mel fan lay mujjee poussière lay mujj day mujj nëpp sax yi lekk ko nga mujj poussière ngay mujje immeuble yi compte bancaire yi katkat yi fu muy mujj poussière lay mujj risqan xasanan mooy ajjana boo duggee jëmm ja la fa yàlla may day gën a taaru abadan abadan abadan xéewal yi nga fay fekk day gën a taaru abadan abadan abadan lii mooy risqan xasana yàlla bu mu ñu ëm foo borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne yàlla mooy ki bind juróom-ñaari asamaan yàlla moo bind ci suuf lu tol noonu te julit loolu ngay gëm suñu borom bind na juróom-ñaari asamaan nee na asamaanu benneel bi ci la biddiw yi nekk boo demee scientifique yi dañ lay wax di milliards et des milliards de kilomètres xajul suñu xel waaye suuf bi ñu tool it juróom-ñaari couche la juróom-ñaari couche yu tegaloo la moo tax yonent bi alayhi salaam nee na ki jël ci suufas jàmbur këram la toolam la nga jël ci lu tolloog chibra mooy yaatuwaay loo xam ni yàlla da koy bëtt ba juróom-ñaari suuf boo dekkee sa bàmmeel moom lañ lay sëf ngay indi bisu penc am na yàlla musul ñu ci kon borom boobu bind juróom-ñaari asamaan bind suuf nee na ay mbiram ñi ngi wàcc ci loolu yàllay wàcc ay mbiram ci asamaan mooy wàcc ay mbiram ci suuf moo dogal dundub suuf dogal ñi fiy dund dogal seen wërsëg dogal seen dee mooy dogal ba mu leen di dekkal lépp dara du ci rëcc sa borom laa yazubu anhu misqala zarra borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne leeralal naa leen lii ngir ngeen xam ne yàlla am na kàttan ci lé ci lépp te yàlla peeg ñi lépp ay yow borom xel yow mi nekk ci kaw suufa si yàlla asamaanu yàlla tiim la ndax mën nga fay def lu yàlla xamut déedéet axaata bi kulli shayin ilma yàlla peeg ñi lépp su dee it xam nga ne yàlla peeg ñi lépp xam nga ne kon loo nekk ci jafe-jafe yàlla xam na ko e waaye ca yàlla nee na mu am kàttan ci lépp ñaar yi la boole kàttan gu mat sëkk xam-xam bu mat sëkk ala kulli shay'in qadir ahaata bi kulli shay'in ilma looloo tax ba julit du jàq di yaakaar keneen ku dul yàlla julit du am yaakaar di ko xalaat ci keneen ku dul yàlla julit dafay xam ne kenn dong moo yor mbir yépp ñaar moo ko war sabab lu ca la ko kookee may muy boroomam waaye nag sukkandiku ci moom dellu ci moom wallahi lii képp ku ko def texe nga àdduna texe nga àllaaxira yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain su dee yàlla subhanahu wa taala dogal nañu gis ko it incha allah kon samedi dañ fi daje gannaaw tàkkusaan la yàlla yombal ci téer bi yàlla ba ñu jël ko nañ ko doon defe it mooy fii ñu yem ci tafsir bëccëg bi moom la ñuy continuer ci biir weeru koor gi suñ fi dajawaatee gannaaw shahru ramadan it fa ñeemoon ca koor ga rek foofu la ñuy continuer ndax téere bi yàlla bi moom jullit dafa war a ñaan ànd ak moom ba baa muy dugg bàmmeel yal na yàlla subhanahu wa taala yombal ko ci ñun di fàttali it mbokk yi yaakaar naa ñu bari sax xam nañ ko te mooy ñi yàlla may amuñu kattan di ñëw bés bu nekk it suñ joxee seen numéro fii ci kanam jàkk bi am na groupe boo xam ne fu ñu paree ci tafsir bi day dugg ci biir groupe bi foo mën a nekk da nga ko mën a jël pour man ko déglu mu ngi noonu bokk na ca 77 814 42 20 boo ca yónnee sa numéro rek incha allah soo munta tey it tafsir bi fu mu paree bu soobee yàlla da nga ko jot ñooñu nga xam ne ñoo koy taxawee it yal na yàlla boole leen fay mu ngi noonu kon incha allah xam naa ñu jël ci ñaar wala ñett rek comme dafa guddi bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ndax ki nga xam ne dafa julli farata ba pare ndax mën naa bàyyi baqiyat salihat te def ay naafilaam waaw su dee bi nga jullee farata ba pare def nga ay azkar yoo xam ne teqale na sa digganteeg farata bi allahuma anta salaam wa minka salaam tabarakta jal jalal wal ikram ak ya ca topp loolu bu la neexee nga jóg def say naafil avant ngay def baqiyat salihat yoo xam ne mën nga koo def sax ci yoon bi li ñuy bañ daal mooy asalaamaaleykum ci farata gi jóg taxaw taxawal naafila déedéet mooy dañoo war a teqali diggante farata bi ak naafila bi ci ay wax wala la nga xamee ni it day nekk ci ay jëf mooy déplacé wu dem feneen mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam parce que na la ñetti yoon loole dafa bokk ci li borom xam-xam yi am ixtilaaf ci jamono Omar ibnul Xataab bal ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay nee na soxnaam fasu naa la ñetti yoon am ku ñëw wax ko yonent bi daa di ne ko diw de nee na fasu na soxnaam ñetti yoon yonent bi mer ba xonq cur ndax dañuy fay téere bu yàlla bi ci maa ngi dund ci seen biir ba benn waay bocc jaasim ne yow mu yàlla yoon bàyyi ma rey ko yonent bi na ko bàyyi ko loolee bi fi yonent bi jógee gaa yi continué loolu ku mere soxnaam ne ko fas naa la ñetti yoon Omar ibnul Xattaab daal di woote daal di ne yàlla moo ñu mayoon faseel jël faseel jël ñetteel bi di doog a xaraam léegi képp ko fi waxati fase naa la ñetti yoon soxna si dana la araam dootoo séeg moom ba baa muy séeg keneen loolee doon benn mbir boo xam ne depuis jamono Omar borom xam-xam yaa ngi ko doon jëfee. moo am nag ixtilaaf bu ci am ci borom xam-xam yi ndax dañ koy tudde sunna ndax yonent bi moo xoon nañ jël sunna xulafaa rashidun am na ñoo xam ne loolu lañ jàpp bokk na ci mazhab malik ak yemel ne moom heure bu góor ne soxnaam fase naa la ñetti yoon dootu ko dagan lu dul mu seeg keneen donte ne nag bu ñu xoolee la nga xamee ni mooy borom xam-xam yi gën a tolérant dañ ne loolu Omar moo ko tëraloon en tant que amir ngir yar société am waaye atteb yàlla ci alquran ak doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy góor bala koo soxnaama xaraam da koy fase jëlaat fase jëlaat troisième bala koy doog a xaraam loolu daal kon ñu xam ne moo jur ixtilaaf bi ngeen di xam fii bu dee ne nag sunu maam yi nga xam ni seen téere yi ñu doon jàng yépp ci mazhab Malik la tënku ñoom xamuñu lu dul ku fase su wax sa soxna ñetti yoon day aram ci yow lu ci mën a am wax ju bon la wax ju ñaaw la mer la woon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na doon dañ koy considéré ñettam dañ koy considéré benn benn góor wurte wax loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam xanaa kon ñu sëñ bi dañu waxoon ñett kon ñaar ñi la ñuy mujjee incha allah bismillah waaw waaw waaw ndax man na ah non suñu borom dane nañu nañu continuer nekk ci seen kër benn soxna dong la moo doon togg islam di kay mën na lay toggal mën na koy toggal mën na lay toilettul ndax l'islam lim bëgg mooy ngeen àndaat ngeen àndaat loolu l'islam bëgg loolee kon mu continuer yor njëlli loolee dara nekku ca mi ngi noonu yàlla yàlla bañ nangu waaw bismillah ñu mujj ca mbokk bee rek waaw waaw bismillah waaw ah naam naam waaw ah waaw waaw mu ne ñaar ñoo xam ne dañ doon sëy léegi tas nañu kon ñoom ñaar ñëpp ay célibataire lañu ndax ñooñu buñ njaaloo wàccee dañ leen war a duma rek wala dañ leen war a rey ala kulli xaal li ma li ma la ñuy jëkk a wax mooy kañ lañu sëy bu dee bi mu ko fasee dañoo sëy ci biir idda bi loolee kenn du leen dóor ci loolu kenn du leen rey ci loolu loolu mi ngi noonu ndax bu boobaa dañuy jàpp ne loolu ak delloo lañ koy considéré amma bu doon idda ba dafa jeex luñ leen di def dañ leen di rey ñoom ñaar ñépp nañu xam ne islam du ne ki ñu war a rey mooy ki nekk ci sëy déedéet islam ki ñu war a rey mooy ki mas a sëy maadaama mas ngaa sëy ba ànd ak sa soxna benn guddi soxna si mas naa sëy ànd ak borom këram benn guddi su boobaa bu ñu njaaloo dañ leen di rey su dee mas masañoo sëy waaye musuñoo ànd masalan ku góor ki takk may nañ ko soxna dix ans waaye musul ànd ak soxnaam ku jigéen ki naka noonu ñooñu buñ njaaloo it dañ leen di considérer dañ leen di duma kese waaye képp koo xam ne mas ngaa sëy ba consommé sëy bi góor ak jigéen boo njaaloo waatee na doon bi ngay njaaloo yaa ngeeg soxnaam yoroo soxna su boobaa dañ laa war a rey mbokk jullit xam ngeen question si moom du jeex xanaa ñu daje bàyyi ba beneen yoon di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla fekkaloo chehru ramadan ñu dund ko ci lam gërëmi waaye suñuy guddi àllarba yi it yàlla nañu dem ba ramadan jeex bañu dellu si waat fii yàlla nangul ñu nangul bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain